تهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له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 del siwaat nañ ci tafsir bi biiznillah ba tey ñu ngi ci suuratu al anfaal war a tàmbalee ci bopp aaya 70 ila nihayati suura comme niñ ko waxee woon tey danoo am yéene saar bi jeex tey incha allah rubbama dinañ ko tënk ci li ñu mën waaye bu fekkee ni dana romb ci mi ay minit tamit du war a bari baada audu billahi min alshaytan alrajim yaa ayuha nnabiyu qul liman fi aydikum min alasra in yalamu llahu fi qulubikum xayra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 لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منهم وأولو الأرهام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم الحمد لله رب العالمين ba tey ñu ngi nekk ci badr asaara yi nga usaara yi nga xam ni yonent bi sallallahu alayhi wa jàppoon na leen moom ak jullit ñi borom bi doon xabaar yonent bi ne ko intérêt yi àdduna bu mu la itteel ne la itteel rekk njubu nit ñi ndax kat nekkoo ku ñu yónni pour di dajale alal wala di ut wala tamnun tastaksir bul nekk koo xam ni sa itte yépp alal la comme ñu ko nit ñi xewale léegi nag ñi ngeen jàpp ci ay jaar-jaar yàllaa leen gën a xam borom bi ne bu xamoon ca seeni xol yi yiw ak mbaax kon kat dana leen jéggal waaye newut ca boo tax mu ne yaa ayyuhan nabi ay yow yonent bii di muhammad sallallahu alayka wa sallam qul waxal waay liman fii aydikum ña nekk ci seeni loxo te dooni jar-jar minal asra ci jar-jar yi te ñooy prisonnier de guerre yi xabar leen ne leen in yaalamillaahu fi quluubikum xayra yàlla bu xamoon ca seen xol yi yiw loolu waxin la buy wane ni ñoom bu jub ne woon ci ñoom du ñu àgg sax bay xare kon danañ wax ashhadu an laa ilaha illa moo tax mu ne in yaalamillah su yàlla xamoon fii quluubikum ca xol yi xayran yiw kon dey moom yàlla yuktikum dana jox leen xayran yiw bu ëpp lii ngeen di ut ngeen am ba mimma uxida la jëlef na ko ci yéen yemut ca waaye mu teg ci jéggal leen yàlla borom jéggallu mag la wallahu yàlla day gafuurun jéggalaakoon la raxiimun aj yërëm la yal yàlla jéggal ñu yërëm ñu yërmande yàlla dafa mel ni géej géej nag sobe su ci dugg dootul tudd sobe ndax na mu toll moo tax lu ñëw ay xasanaatam da koy tiim loo mun ci def géej def nga ko rek waaye boo paree du saf dara la def ba waxoon waa bi waa ji ne lu ma neex ma soppi mu ne ko ba mu des géej waa ji du xol ba jàng ne kii dofut de mu ne ko yàlla naa nekk sa taawu bàyyi mu ne ko déedéet wax na ko dëgg géej moom <laughs> munoo soppi ba soppi ko xam nga ni kooku ku ne dof la daanaka yaa bëgg a dof waaw bëri le moom bu taxee nga foog ñi mën ngaa suukar géej ba xorom jóg fa dangay ngay jeexal kon yàlla borom jéggal gu yaatu la wallaahi yàlla nañu yàlla jéggal yàlla nañu yàlla jéggal wallaahi lépp lu ñuy def su àndee jéggalu rek xel dana dal ndax borom bi dafa bëgg ñu koy ñaan te di ko jéggalu te yeesal tuub waxtu wu nekk jamono bu nekk mën ngaa bàkkaar moo xam nga yëg ko walla nga ñàkk koo yëg bàkkaaru làmmiñ bàkkaaru bët bàkkaaru nopp ñetti bàkkaar yi damay wax ni mucc ci yombatul bàkkaaru làmmiñ bët nopp mucc ci yombatul ndax dañoo nekk ci jamono yi fëlëx rëjëx moom pour nga baax moom da ngay wéet rekk sori ñu bon waaye boo jegee ñi bon rekk ñu taal la këriñ du jaar moo tax dund ci capital ak dund ci dëkk yu mel nii loolu mooy dange bi da nga xëy suba teel jàng alquran def lépp ba chargé wu fees del waaye boo génnee di liggéey rek boo moytu lépp ay roccikuwaat waxuma sax lépp ay roccikuwaat dana rocciku ba rocci leneen loolu moom mooy dund bii ñuy dund tey kon yal nañ ci yàlla yërëm ci yërmandeem gu yaatu ga yal na yàlla muur ñu malaanum sutura yal yàlla muur ñu malaanam sutura ndax kat mucc ci bàkkaar yombut ku dul bàkkaar moom amut xanaa kay degré yi ñoom ñoo wuute rek waaye yal nañu yàlla musal ñu góorgóorlu ba yu mag yi nga xam ni daa mel ni bokkaale yu mel ni sàngara yu mel ni jëw yu mel ni fenn yu mel ni njaaloo yi mel ni déglu musique yal nañ ci yàlla musal déglu musique nag léegi problème bi kay li lay musal mooy bu mu doon yaa ko sooke rek waaye léegi moom foo jaar nga dégg ko moom déglu nag ak dégg du benn déglu yaa ko sabab dégg sabakoo bu dee li ngay dégg nag am nga doole ci tere ko su boobaa moog déglu ñoo xaw a jege yoo kon waxal man raa minkum munkaran fal yugayyirhu bi yadihi dégg nga ko ci sa kër yaay borom kër gi sa soxna say doom nee leen fay leen kooku moom yaa koy dindi ak sa loxo foofu doo toog rek ne <clears throat> man taaluma ko sama yoon newu ci comme am nga autorité kàddu gu toll ak boo waxee ñu bañ a def moom foofu moom dangay wax su fekkee nag ab locataire nga wala nga nekk ci bërëb ba nga xam ne yaa ngi fa nekk yéen a fa yem droit ah keneen kiy def loo mën nasiha ko nga mën fa in lam yastati fa bi lisaani làmmiñ mooy des mooy nga jéem koo nasiha nasiha nag ñaari yoon la nit ki balaan koo nasiha da xam ban genre la ban genre la nan la lay xoolee yow mi ko war a nasiha loolu lu am solo la te ñu koy fàtte gis nga ki nga war a nasiha bu la sous-estimé jaratul nasiha boo ko nasiha tamit histoire lay indi koo xamante ni chaque jour am na bët bu mu lay xoolee da lay xool ni yow ibaadu nga da nga may jaay yu amut da lay xool ni danga may jaay ni jaamu yàlla nga dala fa da may jaay ni nangam ki la ba xool nii pour nga nasiha ko il faut nga wàcc wàcc wàcc wàcc ba li nga koy nasiha sax boo mënoon bu ci dugal alxuraan bu ci dugal hadis fexeel ba wax ak moom ci xel rek ci kaf ak ree bàyyee loo xam ne dana ci xalaat su fekkee ne mënoo ci daara mooy fa bi qalbihi te loolu mooy wa dalika adaful loolu moo gën a néew kàttan ci ngëm-ngëm yi kon nag li jaadu mooy ñun ñépp danoo war a taxaw ñi ñu mën a jubal ñu fexe ñu jub ñi ñu mën a waxal ñu fexe wax ak ñoom ñi ñu mën a fexe ba ñu bàyyi ci suñu kàttan nañu ko fexe loolu moom mooy taxawaay bi njëkk ci suñu taxawaay ñun jullit tey ñii liggéey ci marché ci xam nañ lii ma wax dañuy déglu musique ba ba ñuy wàcc mënoo ci dara boo dend ak ñaar kii di rëkk fii kii di rëkk fee xanaa mënoo dëkk rek fàtt say nopp loolu mënoo ko waaye nag dégg gi nga koy dégg nara naqar li nara naqar li métut lu ko métut lu ko am na it bu gën a doy waar boo xam ni wajhu la ci nifaaq dañu ko moytu mooy mbëkkanlente ay nit mbëkkalante ay nit fexe ba jaxase leen kooku ci bàkkaar yu mag yi la bokk ndax yonent bi sallallahu alayhi nee na laa yadxulul janna qattaat dinaay faral di wax toujours borom xam-xam yi dañuy wax ci laaj am na koo xam ne laajam laajul ngir jëriñu laajul ngir jëriñe dafay laaj ngir xam foo toll ci xam-xam loolu rek ko ci itteel laajam yépp luxsa lay nekk day fexe ba ràbb laaj bi ràbbin boo xam ni bu la ko laajee soo teeyu rek mën a ah yi de gaayee ko kii rek waaye xamul dara loolu mooy jubluwaayam am na ci koo xam ni day laaj ngir mbëkkante la ak beneen borom xam-xam fan yi dafa am benn mbokk moo ko def moo tax maa ngi nasiha sam bopp di nasiha mbokk yépp ñun ñëpp ñun ñoo bokk jubluwaay waaye xool leen yenn yëfi dof yi ni ñu koy defee Ousmane Sall ma ne naam dama fekkee conférence docteur Ahmad Lo xafisahullah waraa bi mu doon def ci wàllu njabar ak euh, jeexital yi mais daf foofu loo xam ne daf ma jaaxal daal léegi ma bëgg a laaj la ci ma ne ko li docteur wax ak li muy waaj a wax loolu laa wax fa madhabi madhabu fa madhabi madhabu cheikh man su ma tontu woon dara docteur tontu pare naa ci ñun ay taalibe lañ ci moom taalibe lañ ci moom buñ ñu jaxase ñun ñun fi mu nii yàlla xam na ko laaw ñun ñëpp lañu jàng ci moom ñun ñëpp yàllaa ko def yàlla moom mooy def loolu mais nag nañ ñu dimbalee bañ bañ di ñu jaxaseeg sëriñ si nag bu ñu jaxaseeg ñoom am na benn dëkk boo xam dañ doon organiser benn conférence bëgg ma ak moom ñu def ko ma ne leen mukk abadan du mës a am ma toog docteur Ahmad Lo toog def conférence ma def wala ma def mu def jamais moom kay day def dem ma ñëw waaw waaye nag ñëw bëgg toog ma déedéet diiru ma ko mbagg ci benn côté diiru ma ko ci benn côté bal bu ma toogoon mu toog sax man du ma xam lu may wax di lan laay wax xam nga loolu loolu mooy jaxase nit ma ma toog mu toog man léegi lan laay wax ah loolu xet nangu na <laughs> mais bi yenn yi nañ koy seetluwaay kii yenn laaj yi ñuy laaj nañ ciy bàyyi xel bu baax a baax a baax yooyu yooyu day day day yàq ànd day jaxase ay nit te fitna lay indi bu ñu ko buñ ko buñ ko tëjul rek fitna lay indi wallaay maa ngi koy sàkku ci mbokk yëpp ñu dimbaliñ ci loolu nañ bàyyi wax ni Assane moo wax nangam ma la nangam euh, Umar Sall la wax nangam ma la nangam Khalil loo wax nangam ñun benn lañ kenn mën ñoo tàqale benn ñun ñëpp a ahlu lañ te manhaju naa manhaju salaf loolu la ñu gëm kon jaxase yu mel noonu boo gisee ma koy leeral pour jamaa bi ñëpp dégg ko te xam ni ñooñu ñoom ñooy suñu sëriñ li war ci ñun mooy di leen ñaanal fu ñu toll ñun ñëpp dañoo am àq ci ñaanal ko ndax ay noon li mu ci am kenn xamut nu mu toll te ñun bu ñu sàgganee ay noonam dal ci kawam ñun ñooy perte kon ñun war nañ di ko ñaanal suñu toll di ko ñaanal yàlla dëgër ndax mi ngi liggéey loo xamante ni bu ko yàlla sottalee ñun ñëpp ñoo koy jëriñoo bu ñu toog nag seetaan kuy mooñ rek ñu ne suñu yoon nekku ci bu ci suuf duggee bu ci rajo paree day xajam kon loolu nañ leen ko moytu yàlla nañ ci yàlla musal moo tax borom bi ne yonent bi wa in yuridu xiyaanatak gis nga ñii bu ñu nammee wor la te sax mooy seen jubluwaay bu mun a jaaxal faqad xaanu llaha min qabl dañoo wor yàlla lu jiitu luy war yàlla yawma an qaala allahu alastu bi rabbikum lu ñu waxoon balaa ñëw ba fii bañ nekk yéefar weddi yàlla ku weddi yàlla kay war nga weddi muhammad ku weddi muhammad kay kon muhammad bu ci amati loo mer ku xas ba nekk yéefar moom bu mun a jaaxal wa in yuridu suñu nammee xiyaanataka wor la xamal ni faqad xaanu llaha bu mu la metti yàlla la ñu njëkk a min qablu lu jiitu fa amkana minhum yàlla jàppandal leen ba téye leen wallaahu yàlla mun ko xam la ba ñuy def màkka la ñuy def màkka di jaay jaay jaay yàlla da leen seetaan rek xam na ni munuñoo raw inna batsha rabbika la shadid yàlla xam na ni munuñoo raw léegi nag ñu ngi def li ñuy def ak seen ak dëgër yàlla di leen waajal rek ba badar jot mu bàyyi leen ak ay gaayam ñu duma leen moo tax mu ne fa am amkana minhum yàlla jàppandal leen wallahu yàlla alimun aji xam la hakimun aji xarala la léegi nag mu ñëw ci jullit ak pas ak nusrat hada diin lan mooy wareefam ci dimbala diine ji borom bi ne inna alladina amanu naka gaañ a nga xamante ni gëm nañ benn maqaama mu ngóob ñi gëm la wax inna alladina amanu naka gaa ñi nga xamante ni gëm nañ wa haajaru ginnaaw gëm ga ñu gàddaay ginnaaw gëm ga ñu gàddaay te xam ngeen ni al al muhaajiru man hajara ma naha allahu anhu ki gàddaay mooy ki gàddaay li yàlla araamal ki gàddaay li yàlla tere kon buntu gàddaay mi ngi fi ba léegi fexeel ba gàddaay li yàlla araamal mooy fexeel ba moytu bàkkaar yi bàkkaaru jigéen moytu ko bàkkaaru joxe loxo moytu ko gis nga jullit pour nga mucc ci bàkkaaru jigéen nattal sa digganteeg sa borom jigéen jii nga jox loxo te sa borom bañ ko lan la la yokk lan la la yokk xool ko su fekkee yokk na la dara lam la yokk de bay wut ci kanamu yàlla jox loxo rek amut benn solo amul benn njëriñ seytaane nag dina nax nit di ko nax di ko nax ba dootul gis li ñuy tere kii tere lay gis dégg ngeen wax bi dootul gis li ñuy tere danger bi ñuy tere dootul ko gis mais ki koy ki koy wax lay jàpp par exemple nga waroon a xam ni lii yàllaa ko tere mais Umar Sall ko wax du ko bàyyi moom daa am fu mu fara tax mu wax ko mais ñun fi ñu bokk dañuy joxe ko dara newu ci loolu loolu moom mooy danger bi te lii danger mooy léeg-léeg ku xamul wala ku doy bu jiitoo ci yow fitna ñëw na fitna ñëw na looloo tax ñu bëri ci jigéen ñi danañu bëgg a muuru mais la leen nax mooy kilifa diine yi ñuy gis seeni soxna muuru wuñ ñooñu mooy problème mu daawa bi parce que yow jigéen bu ñu la nee muurul xool leen yàlla fi mu tàmbalee muuraay nga xam ni bépp ndigal bu yàllay santaane que mu yónne ci jiitu ba yàllay wax ci wàllu muuraay lu mu wax yonent bi yow laa wax yaa ayyuha nabi yow muhammad laa wax waxal say jabar jigéen dugg la waxal say doom këram jeex na ñun rek fa nekk ay jabaram ak i doomam ba pare nga wax jigéenu jullit ñi moom laa wax démb ci xutba ne kon nag adresse bi daa leer yàlla waxul waxal jigéen ñi wa nisaa'il kon yomb na wala déet man daa foog aaya bi ku ko seetlu xam ne yow jaratul xuloo yomb na wa nisaa'il mu'minin waxal jigéeni jullit yi jigéen ñi gëm kon ñi gëmul génn nañ yaa xay mbir bi yomb na yow muuru woo égal gëmuloo ah damaa wax loolu <laughs> ah xanaa imaam ñëw firi aaya bi bokk waaye jigéenu jullit ñi la wax de waxal jigéenu jullit ñi communiqué bi pare na sa kër pare na article bi sa kër jëfe nañ ko waaye waxal jigéen ñi gëm ñi gëm kon nag ku gëm da muuru ku gëmul yaa gëmadi jaru fee nekk naan man kay xanaa da ngeen du ma ibaadu xanaa man du ma juri kooku sa problème la yàlla moo wax sa problème la kooku moom li li waa jox moom yaay xool foo ci féete yàlla daal jigéen ñi gëm la waxal su fekkee bokk nga ci jigéen ñi gëm da nga ko def boo ci bokkul nag sa problème la bul ni mukk dañ laa xañ àjjana moomuñu ko moomuñu ko de kenn ci ñun moomul àjjana waaye daal li leer mooy jigéeni jullit ñi moom ba ñu ko déggee la ñu muuru moo tax yaa Aysa nee na jigéenu saxaaba yi kenn du ñoom ba ñu ko déggee ca tool la nekkoon ci tàndarma yi ñii ci ñii di liggéey ñii def dara dañ koo déggee commencé dagg seen kër sër appliqué yow nag nga ni noo naa bàyyi ba dem marché Castor jënd kaala trois mille cinq cent bu bulo nuroog la may sol ma muuroo ko yow paree ko paree ko jamono ba nga paree la nga am ngay teg sa bopp ndax application bi lañ la sant yudniina alayhinna min jalaabiibi zalika adna ay yuraf na yàlla nee na looloo gën a jege ñu xàmme leen tey da ngay dajeeg jigéen doo ko xam ah jigéen dem bay ala garçon dem ba takkatul jaaro dem ba nuru góor sol yére góor da dox doo ko xàmme léeg-léeg boo defum ndànk nit na la nuyu nga jox la ko jàpp ndekk jigéen nga ko jox billaahi wallahi wallahi li léeg-léeg day am léegi gis koo xam ne bu la bettee nuyu la da pare di jooy kay da ngay pare ndax yow jigéen moo la nuyu wala bant la nuyu waaw yàlla kay nee na xàmmekaay bi mooy na muuru su muuroo woon moom lu munti am moom boo gisee di nga xam ne jigéen la du la nuyu kon nag jigéen ñi gëm la yàlla waxal jigéen ñi gëm nag ah du bari de ñu ngi ci mujj jamono du bari de kon yow sama jigéen fexeel nga bokk ci nombre bu néew boobu nga bokk ci bokk al mu'minaat bokk au moins nga dagg nga nga dagg nag deuxième degré comme fexe nga ba dugg ci muslimaat muslimaat moom dugg ci yomb nag waaw mooy mooy mooy ashhadu an laa ilaaha illallaah wa anna laakin mu'minaat appliqué rek appliqué rek te nag bokk na ci appliqué muuraay man damay wax ni même bu du woon a ngëm yàlla gi mais seytaane mer ak i mbokkam rek jar na muur seytaane mer i mbokkam jar na muur moo tax yàlla ne yonent bi ñii bu ñu la bëggee worit waroon nañ ma bu yàgg comme waroon nañ ma nag na nga yëg ni seen devoir yéen jullit mooy yéen ñi gëm inna allazina amanu naka ñi gëm yàlla wa haajaru ñu gàddaay jóge Makka ñëw Madina yemut fa de wa nasaru wa wajahadu bi amwalihim ñu jihaad ci seen alal allahu akbar wa jahadu bi amwalihim ndeke jihaad du bakkan rek waaye alal ma am na moment boo xam ne alal mooy jihaad am moment boo xam ne bakkan mooy jihaad am moment boo xam ne ñaar yépp ay ànd kon jihaad nañ ca seen alal mooy yëkkati la ñu war a def ci diina def ko ci ca seeni mbokk jullit def ko ci yorant bi def ko ci saxaaba yi def ko ci projet jàkka yi bokk na ci jiyaat facture jàkka yi ñoo ko war a fay bu ma ci kenn njëkk facture robinet bi ñoo ko war a fay bu ci kenn njëkk setal jàkka yi jigéen ñi bu ma ci kenn njëkk man war naa fexe di bala jàkka ji di ko cuuraay bu ma ci kenn njëkk tuyaaba du doy de bisa ngi ñëw loo fa am dang ko xeeb loo fa am gis ku la romb mooy yowmal qiyaam yowmal qiyaam kursu la da nga daw daw ba foog ni yaa dàq daw gerte fekk séenatu kenn nga commencé na waaye man fu ma toll fu ma toll kon léegi nag waa jaahadu bi amwaalihim ñu jihaad seen alal wa anfusihim ak seen bakkan fu ñu ko def fii sabilillah ci yoonu yàlla borom bi leen yemut de wallazina ak ña nga xam ni aa waw tàppoo nañu yonent muy ñan waa madina waay walladina woowu daara wal imaana min qablihim nit dina tàppoo yonent bi sax te dëkkul madina mooy jël yonent bi def ko sa xol lu mu santaane nga def lu mu tere nga bàyyi lépp lu mu muhammad wax lu rafet la lu mu waxut lu ñaaw la fexeel ba bu la iblis nax waaye yonent bi amut lu ñaaw xamut lu ñaaw lu ñaaw du ko jege yonent bi dafa taaru woon ba ñaqam moo gën a xeeñ parfum bi ñuy wax misk benn bi tëdd na di nelaw tëdd na di nelaw ummu salama yonent bi nelaw ñàkk ummu salama jël benn euh, xottu kii mbattu di ko bomb ci ñàkk yonent bi di ko siit di def yonent bi yeewu ne ko waaw lii lan la mën ko xii yonent bi lii dañ koy def suñu parfum ak suñu cuuraay yi lii moo gën a xeeñ parfum allahu akbar allahu akbar lii moo gën a xeeñ parfum kooku yonent bi nee borom bi nee na da nga koy tàppoo tàppool yonent bi sawet bu ko kenn yàpp bu ko kenn saaga dimbale ko ci loo wa nasaru ak ñi ko dimbale yonent borom bi nee na ulaayika ñooñee baaduhum lenn ca ñoom ña awliyaa u baad ñooy xaritu ñeneen nekk kon jullit jullitay xaritam bëy ca bëyee mbaa cere jël ko jullit jullitay xaritam boo kon am xarit bu dul jullit ana jullit ñi ni ñu bëree ana jullit ñi ni ñu bëree da nga leen mën a jeexal kon nag jullit borom bi leen a jullit ay xaritam xarit boo xam ni fu ñu noddee mu ne la waxtu yu jot na mbaa nga jóg ne ko nañ julli waaye xarit boo xamante ni yoonam ci yooyu amagoo xarit borom bi nee na wallazina amanu deuxième étape bii am na ñu gëm de waaye walam yuhaajiru gàddaayuñu waajuñ ko ci seen xel préparé wuñu ko borom bi nee na maanakum déet yéen ak ñoom min walaayatim di méngoog ñoom maanaam ñii nee nañu gëm nañ waaye nag intérêt moo leen fi bàyyi ñëwuñu gàddaay kon fa la des ca Màkka ñoo fa bàyyi seen bopp waxul ñi fa des te amuñu pexe am na ñu fa desoon te amuñu pexe borom bi may na leen ngànt mais ñi am mooy am pexe te demuñu ñooñu amuñu ngànt kon borom bi ne maalakum dindi ñeen leen min walaayatihim ci méngoog ñoom min shay'in ci dara xataa yu haajiru ba ñu gàddaay ndax jamono biñ toll nii moom gàddaay mooy wane ngëm kon ku fa des ci sa bakkan yaa fa des sa bopp waaye bu dee koo xamante ni desam mënta ñàkk lu mel ni jigéen bu amul doole xale bu amul pexe jaam bu mënta génn wala koo xamante ne amul ndimbal lu mu génnee ñooñu mën nañ koo def te ngeen seeti pexe fan ngeen di jaar ba ñu génn moo tax borom bi ne xattaa yu haajiru bu leen am ak ñoom benn méngoo batuñu gàddaayo ñoom ñooñu léegi nag ña nga fa toog nañ nee nañu gëm nañ bu leen fa nattu fekkee wala yéefari di leen duma wala ñu leen di toroxal wala dëkku jullit bu ñuy toroxal ngeen am pexe wa in istansarukum jullit bu ñaanee ndimbal moroom jullitam da ko war dimbal loolu mooy wax ci wa in istansarukum suñu sàkkoo ngeen dimbala leen fi diini ci diine kon fa aleykum war na leen an nasru ndimbal loolu mooy wax ci sa moroomu jullit su ne dama bëgg nga dimbale ma ci nàngam pexe amatul dimbale rek moo ca war boo ko mënee soo ko amee dimbale ko soo ko amul bul toog utal ko pexe su pexe amul àndal ak moom ba ndimbal ñëw yombatut nag loolu mooy sacrifice jullit bi soxla na mu ñëw ci yow wax la amoo loo ko defal nga ànd ak moom utal ko ay pexe ba loolu sotti kon day mel ni yow yaa ko ko defal ndax loolu bëreeti na bëreetut de saxaaba yi nii la ñu meroon léeg-léeg nga leb nit mu ne la waaw nga toog mu jóg génn dem lebi ñëw jox la allahu akbar bu dee ñu ne ah man nag kay nag moom bor duma ci fekk nag moom wax ne dëgg nag loolu moom doo ci am bàkkaar nag dëgg-dëgg waaye dalay wan ni maqaamay mbaax dafa romb lu bari li ñuy yaakaar ndax léeg-léeg nga dimbal dimbal loo xam ni bu la yàlla tontoo nga xam ne ndekk lu dul dimbalu nit baaxul nga xettale nit nga xam ne lu dul xettale nit baaxul dimbal nit dafa ama am solo benn waaye mi ngi nettali mu ne day tukki jëm côté Medina Gunaas bi mu demee ba romb Tàmba xaw ma mu fa rombee mu fekk benn chauffeur boo xam ni mi ngi yore oto bu ndaw ci biir ndox ban bi téeku waa ji taxaw foofu ku romb mu ñaan la nga jàll doo ko faale waa ji def na ko trois heures du matin ba midi kenn dimbalewu waa ji samp benn bant toog ci def nii jaaxle jàkkaarlu oto bi suñu mbokk mii ne moom bi ma agsee séen ko mu droite taxaw ne ko hey lan la mu ne ko waaye demal nit ñi kenn baaxote mu ne ko déet <laughs> man dama lay laaj lan la boobu découragé na i ma xool leen trois heures du matin ba midi boo ab ah, boo def da ngay découragé mu ne ko lan la mu ne man depuis trois heures du matin maa ngi fii ndox la ban la oto baa ngi fi ku ma ni na ma dimbale duñ ma faale ma ni naa toog fii ba day ñëw mu ne bu loo réglé mu ne ko amul ko problème xaaral ma avancé waa ji avancé génn buumam takkal ko ñuy naxante nee na deux heures de temps nekk na fa waa ji ba oto waa ji génn bi oto bi génnee mu dem jël bant xoos pono yi dimbale ko ñu dem tànk ndox xaw a defar oto bi mu ne ko naa la génn ba nga sori dafa génne waa ji ba mu sori taxaw waa ji ne kulbit bunt bi rek di yuuxu di jooy di jooy mu ne fa di ko nax di ko nax ba yàgg mu ne foogu ni woon malaaka buy dox ci kaw suuf am na mu ne ko yow doo nit malaaka nga lii malaaka dong koy def mu ne ko ah déet nag duma malaaka nit laa duma malaaka nit laa mais damaa xam ni nit nga war nañ la dimbale te àll bi wóorul waa ji ne ko foo dëkk mu ne ko Dakar laa dëkk Pikine laa dëkk mu ne ko xanaa ibaadu nga waa dëgg ah, waaw moom laa de mu ne ko bis ni ki tey nekk naa ibaadu dugg ci otoom génne paakaam dagg ay ndombaam yépp dagg ko ba pare ne ko di wéy sama sëriñ nang waay jaar fu bon billaahi laa lu jooylu yaa fi bon mbokk bi ne muy dawal otoom ba dugg biir parc ñokal ko ba nee na benn njaa àll boo xam ne lu mën a rey nit la te ñu bëri doon na leen lor waa ji nee na mu ñëw ba seen affaire bi fay làmpam nee na rab wi daa ñëw ba ci moom jàkkaarloo moom mbokk bi naan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illa allah allahu akbar rab wi ñëw mar oto bi ko xool ko waa ji xool ko mu xool ko waa ji xool ko mu tourné wan ko ginnaaw na ji taal otoom dem mu ne imagineel tey bu ma dimbaliwul woon sama mbokk bee ndax yàlla dina ma defal dimbali jullit foofu la war a xoole moo tax léeg-léeg bul sàgganee dimbal bu ko sàgganee donte kër gi fan la féete nga xam ko wax ko ko ndax addaallu ala al xayr ka faa'ilihi lii mu nekk gest boo xamante ni bépp ahlu sunna bu ko dégg sa xol day sedd xooleen baat bi ñu ko xanaa ibaadu kon lu muy tekki tey ndimbal ñu bari ñu ngi ko yaakaaree ci ñoom kon képp ku am ndimbal looy dimbalee sa mbokk jullit jaadu na nga dimbalee ko te nag dimbaleel nit bàyyee yàlla sa bopp bàyyee ko boppam yàlla xam na ki nga ko defal xam na dara du réer fa moom dara du réer kon su jullit ñëwee wa in fi diin fa alaykumu nasr su ñëwee bëgg ngeen dimbale leen war na yéen ngeen dimbale leen ah illa ala qawmin lu dul aw nit boo xam ne baynakum nekk na seen diggante wa baynahum ak ñoom miisaab kóllëre kóllëre ñoo xamante ni ba ñuy dem amoon na kóllëre bu ngeen am pacte ak yéefar yi jullit warta gaaw a dagg pacte déedéet comme da nga ak moom fexe ko sàmm ba moom mu dindi yow nga dindi nga la bul jëflante ku dul ahlu sunna war ko soo ko waree yemut ci yow xas lu nga diine xas lu nga mbokk yépp xas lu nga ahlu sunna lépp luy doon lor pareel mu dal sa kaw mais bul pare def ko keneen ndax boo ko defee keneen ñu daal di xas keneen moo borom bi ne wallahu yàlla bi ma te ca la da ngeen jëf ko basiir aji xam ko la lu ngeen di jëf yàlla xam na ko mu ne walladina kafaru gaañe weddi yàlla nag ñoom baaduhum lenn ci ñoom awliyaau baad ñoom ñooy xarit yi ñeneen gis nga yéefar ñoom ñooy ay xarit kon yéen jullit ñi xaritoo leen baaduhum awliyaau baad borom bi nee na illa tafaluhu su ngeen fexewul ba yéen jullit ñi ngeen ànd bàyyi yéefar yi ànd xanaa ngeen bàyyi fa jullit ñi ànd ak yéefar yi bu fitna ñëwee seen kaw la jëm mooy lii ñu dal tey jamono bi ñu tey li ñu dal yëpp ay jullit yu méngoog yéefar jox leen àq bu ëpp bi ñu jox jullit ñi moo leen ko teg ay jullit yu bàyyi jullit ñi ànd ak yéefar jox yéefar yi àq bu ëpp bi ñu waroon jox jullit ñi moo taraxal jullit ñi tey loolu nag bis bi ngeen ko defee liy tooy ci yéen lay jógee moo taxit mi ngi tooy rek borom bi nee na illaa tafalu su ngeen ko deful takun dana nekk fitnatun fitna fil ardi ci suuf si wa fasaadin ak yàq kabirun gu mag a mag a mag jigéenu jullit nan lay sëyee ku dul jullit xanaa oro oro daam njëriñ jigéenu jullit nan lay sëyee ku dul jullit yow jigéen nan ngay bàyyee sa bopp ku sangu janaba di tiim xanaa sa yaram daw xanaa doo tiit xanaa doo jaaxle xanaa doo ragal sa borom jullit foofu la war a xalaatee ñi gëmul yàlla médd lañ médd buy dox lañ médd lañ képp ku ñemee taxaw weddi sa borom weddi sa yonent soo nangoo mu nekk sa jëkkër feebar ñëw na te lii danger bi mooy dangaa dugal sa bopp ci biir yéefar kon lu ñu la dugal da nga dee daal di dugg moo tax borom tudde ko fasaadun kabir xam nga luy fasaadun kabir bi doom yaa ngay am yëpp yéefar la ñuy doon wala ñëpp moom moom même bu la naxee tuddee kenn Ibrahima it Ibrahima du fa doxal moom kay may na ma kenn ma tuddee sama papa may na ma kenn ma tuddee sama sa yaay kon musiba boobu mbokk yàlla ci yàlla musal borom bi nee na amanu naka ñu gëm wa haajaru te ñu gàddaay wa jaahadu ñu jihaad fii sabilillah ci yoonu yàlla ñooñee tega sa baaram wallazina aawaw ak ña tàppoo yonent bi wa nasaru ñu dimbale ko ulaika ñooñee hum ñoom almuminuuna xaqa mooy ñi gëm nga ne kan ak nga ne benn ñi gëm ñaar ñi gàddaay ñett ñi jihaad ci yoonu yàlla ak ñi dimbale yonent bi ak ñi ko tàppoo ñooñu borom bi nee na ñooy jurit ñi dëgg dëgg dëgg yàlla ne lahum ñeel na leen magfiratun jéggal wa rizqun karim ak xéewal bu tedd xéewal bu tedd nag mooy lu leew waxul lu bari de lu lew yonent bi xéewalam lépp tedd te amul woon lu bëri waaye day leew alal bu lewee du la fitnaal du fitnaal sa njaboot soo nelawee doo biddanti alal bu lewut boo ko lekkee biddanti yaram bi mooy diis mu def suux ci sa yaram deret bi tàmbalee am sobe sobe si tàmbale jàpp yuq bi yuq bi tàmbale jàpp yuur yi tànk yi commencé metti bopp bi commencé metti boo tiimee alxuraan commencé gëmmantu booy julli commencé feebar parce que li nga lekk lewut yàlla ñu yàlla musal ci lekk lu lewut soo ñaanee nag musiba la du sotti borom bi nee na walladina amanu ña gëm nag min baadu ginnaaw gi mooy taabixiin ak ñu mel ni ñoom ak ñun yàlla ci yàlla boole wa haajaru ñu gàddaay wa jaahadu ñu jihaad maakum ànd ak yéen fa ulaayika ñooñee minkum ci yéen lañ bokk ak fu nu ko mën a defee rek ñoo ngi yéen bokk jullit da war a am yëg-yëg bu toll nii say moroomu jullit nga yëg loo war a def ci ñoom dimbale leen ko wallaay mbokk yi daanaa gis keemaan bu nekk waaye kemaan bi ma gis suñu rihla bi musuma daje keemaan bu mel noonu loolu sax yàlla dogal na moo tax ma def ci xutba démb bu leen ni woon nii ci Sénégal am na île bu toll ni Bettenty xaw ko fi île bu toll noonu amul ci senegaal mat na Gorée fukki yoon ak ñaar île boobu île boobu nga di ko daw ci vedette lu mel ni li ñu jël si woon nga xam ni vedette la mooy gaalu tubaab bu baax la quarant cinq minutes la koy daw quarante cinq minutes Dakar Gorée mat na loolu ajabul ujaab géej gi dafay am heure yu muy fees gaal yi daw fu ngoonee géej gi tukki dem yoonam su géej gi demee yoonam mun ngaa dox ci géej gi lópp kilomètre dox ci kaw man li dama mënuma ko sax di ko nettali géej gi day dékki disparaître dem dem ba ci océan atlantik dafa tegg toog mu des àll bi kese ngay dox def la neex léeg-léeg géej gi day ñëw bu sës ci kër yi gaal di daw bato di daw waaye loolu yéemewut li gën a yéeme dëkk boobu amul ku dul jullit fa nekk yépp ay jullit lañ yàlla may leen ay ndaw yoo xam ne yu am xel lañ yàlla na yàlla dëgëral leen yàlla na yàlla leen ndaw ñoo xam ne dañoo pareel daawa pareel liggéey seen dëkk dëkk boobu ñaari làkk rek lañuy ñuy làkk arab soose foogal naan loolu amul ci senegal xale boo fooxal arab mu tontu arab wala soose imaam loolu da ngay lii lii ndax am na ci suñu réew arab wala soosa li gën a yéeme jigéen ñëpp mu tajal bi baat man damaa rus sax bi ma yóbboo kaala yi ak kol yi billaahi laajal booy yi ñemuma ko tasaare dama ñëw ne mukk lii may doom ñemuma ko joxe moom dama mujj ne waajaa xanaa ngeen xool jardin beeg ñooñu ñu ngeen ko fa jox rek xale yi ndaw yi jilba ñëpp may jilba yow nga indi leen ay ay ay kaala yoo xam ne ndeysaan sa yaram day daw li gën a yéeme yéen jigéen ñi lancé nañ leen défi de lan mooy défi bi suñ jigéen ñaa ngi nii kuy dox bu suuf si bëree nga wax sa sa sa kii sër ñoom ci géej lañuy liggéey dañuy uti paañ uti si pax ay yére du lu mel noonu la jigéen ñiy liggéey fajar bu ñu noon def fajar ñu ngi fi seeni jilbaab la ñuy xuusee ci biir géej gi kenn doo osu dama taxaw ci jàkk ji di leen xool ba ci àgg sama rangoon tuur ma ne ndeke ñun dese nañ dese nañ ay jigéen di liggéey ci ñun suñ jigéen ñi ku leen bëgg fóotloo sax ñu tiset kese ah du ma tooy kay tiset ngeen baal ma nag jigéen bu dugg ci biir ndox ay kilomètres ci gaal xuus ba ci biir gaal yi ba ci biir di di ut di nuuru ak jël baabam di ut di uti li mu liggéeyee di di jilbaab laa de wax waxuma leen ko wogos loolu jigéen ñoo xam ni ñëppay jàng ñii sëy ak ñi sëyut boo duggee ci ci école bi bo boo yi foofu sa yaram day daw classe boo ci dugg ëpp na soixante-dix personnes quatre-vingts personnes góor ñi jigéen ñi fees del jàng ñu jàngee ba tisbaar ngoon du gont nga seetlu ci jigéen ñi imaan bi yàlla def ci ñoom mais nag laa xarwa côté yu mel noonu ku fa nekk foo jaar nga gëm ndax wa fii kulli shay'in lahu aaya tadullu ala annahu al qissa bi gën a yéeme su ma ko résumé mooy lu mu musul gis ci Afrique laa gis foofu shabaab yi foofu masjid bi fa nekk dañ fa suul ay nit shabaab yoo ak paa yi ñeneen bi dafa tere ñu suul nit ci ñu suuleen kenn waru faa jullee paa yi bañ booy yi jëli jàkka ji kenn dematul julli ji laa juma wala salawaatul xams borom dëkk bi toog ba ci yàgg yëf yi jaaxal ko mu ne mag ñi waa seetlu ngeen ni xale yi ñëwatuñ ñu ne waaw ah lu tax ñu ne ba ba ñu xale yi waxee lee ba léegi ñu bañ daal ñëwatuñ borom dëkk bi naa dem wax ak ñoom ñëw wax ak ñoom boo yi jaaraat fa ñu jaaroon ne ko yonent bi dafa tere ñu jullee ci jàkka bu ñu suul nit ñun duñ ci jullee comme nangu leen koo dindi ñun julli ci jàkka wàcc nañu paa bi ñëw ci yeneen paa yi ñu ne ah. ñoo waxoon suñuy doom nañu jàngi ñun jànguñu napp lañ fi nekkee woon napp suñuy doom jàngi nañ ñëw nañu yonent bi nee yàlla nee na ñu bañ suñu ko teg teguñ ko fenn xale yi ñoo wax dëgg ñoom ñoo jàng ñun jànguñu wallahi mag ñi ko waaw ku ne leen ngeen préparé dinaa sulli néew yi ci jàkk yëpp yóbbu ci armée mbokk yi doo leen xissa bi billaahi ñu jël bis génn génn koor yëpp gas ko yóbbu ca armée la mos mos na am ci Afrique mos nañ ko dégg ci Afrique bal ndax mos nañ ko dégg feneen fu saw xaw ma ko moo tax ma ne lii de waxuma la Sénégal mais Afrique mu ci fee am ñu génne lu lépp yóbbuwaat ca jàkka ja jàkka ja déjà nekk di jàkka néew ya dellu ca ca néew ya dama toog ba jàng ma ne alhamdulillahi alladi anqada hada masjid yàlla mi xettali masjid bi mais yéen ñi ko liggéey dëgg-dëgg am ngeen darajay innahum fityatun amanu bi rab rabbihim wa zidnaahum li leen ci dimbal nag wa rabatna ala qulubihim boo yi benn kàddu lañ ñoom ñëpp benn kàddu lañ paa bi toog ba jaaga na lii tax jaru ko day indi sikk demaat rëdd feneen ne nañ fi defaat jumaa tabax foofu foofu moo nekk ak jumaa dëkk bi nga xissa bii dama toog ba guddi wallaay sama yaram bi day daw presque mën naa ne ci loolu laa jëlee feebar xalaat yu mel noonu ak ñun fan lañu war a jaar ba nit ñi jub bu la yàlla defee ngay borom xol bu tooy daanaka jooy ngay fanaanu parce que dangay gis yoo xam ne yow da nga yaakaaroon ne yaa ngi ci dara ndeke nekk goo ci dara ndeke yow defagoo dara kon mbokk yi ndax jotu ñu gën a wogosuwaat yokkaat dëgëraat xam ni génn dafa nekk lu jaam mbokk yi dem nañ dëkk yoo xamante ne amuñu luñ lekk de wallaahi wax naa ko ci boppam luñ lekk dañoo bay nawet bi doxut dara doxut ñi dañuy dem ci tool yi dara doxut ñooñu ñu ñooñu wallaahi plainte ci kanamu yàlla ñun ñu nekk Dakar ak mboolem judi bu ko dégg plant bi du na mooy seeni moroom ñu ngi ci àll bëgg diine te amuñu lu ñu lekk wa in fi diine fa alaykumu mbokk yi wallaay gis nga foofu damay wax ne jullit bu ne war na góorgóorlu ba dem fa ba gis li nit ñiy dund soo ko dundee di nga xam ne ndeke waratoo denc dara dul nga xettali say moroomu jullit foofu laay daggeeloo li ci ëpp nettali naa ko ci xutba démb bi insha allah waaye mbokk yi gis ngeen jullit dafa war a am xol bu tooy waaye dafa war a am yëg-yëg moo tax borom bi subhanahu wa taala mu ne walladina amanu min baadu ñi gëm gannaaw ga wa haajaru ñu gàddaay wa jaahadu ñu jihaad maakum ànd ak yéen fa ulaayika ñooñee minkum ci yéen lañ ci yéen lañ kon dañ leen góorgóorlu fexe ba defaru jéem a defare te booy jéem a defar ni toujours yow yaa cay defaroo olof nag laa wax booy jéem a defari nit toujours yaa cay defaroo wallaahi ñun de dañuy gën di sant yàlla fu nekk di leen ñaanal yàlla yéen ñuy jël fii seeni dërëm di ko def ci rihlaat yi waaye ku ci génnoon ci yéen bu doon def dërëm dana ko yokk danga xam ni ndeke sunna tasaare ko rek mooy dëgg li ma gën a yéem nag mooy suufiya nan lañu ñu def ba dugg ci àll yëpp ak ahlu sunna lan la ñuy nelaw ba àll yi yàqu ñaar yooyu moom jaaxal na ma moom xaw ma nag xëy na du ñàkk bis ñoom tonton borom bi nee na wa ulul arham mbokk jege ñaala yi baaduhum lenn ci ñoom awlaa ñoo gënee bi baadin leneen fii kitaabillah ci téere yàlla su ndimbal jotee sa mbokk deret soxla ko moo gën a yay su azaka jotee sa mbokk deret soxla ko moo gën a yay inna naka yàlla day bi kulli shay'in ci bépp mbir alimun aji xam la ko yàlla yàlla defal ñu dégg topp yal yàlla may ñu li ñu jot a tafsir ci saar yi ba mu jeex yàlla may ñu ci nuur defal ñu ci nasr defal ñu ci fath defal ñu ci yusru wallahi defal ñu ci ndimbal ci côté bu nekk yal yàlla déggloo ñu alquran yal na yàlla déggloo ñu sunna waaye yal na ñu may sabat ala diin yal na yàlla def ñu ñu sopp yonent bi sax ci dee ci hada wa salla wa sallam ala nabiyina muhammad wa alihi wa sahbi ajmain salaamu aleykum wa rahmatullah